ma jóg la géeyal sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Seex Mustapha ci barke Seex Mustapha Mbàkke sëriñ Baara ma jóg ëpp solo ci màggal bi mooy lii ngeen def mooy sëriñ bi xelam daj ci yow te ngay deret sëñ Abdul Aziz tax sëñ Mustapha mi la jur sëñ Abdul Aziz sa ko jur di taawu kër gi kon su fekkente ne bisu màggalu sëriñ Baara ñëw na màggal gi kenn ku nekk xam ne yii ci am yëpp sëriñ bi ne nañ ma wol sëñ maam Baara mu jox la ndigal ne daara yëpp na nga leen wax nañ jàng alxuraan nga def ko ni mu la ko waxee ñu jàng ñett téeméeri kaamil ak fukk ak ñett ci yeneen daara yi fiit bi nga ñëwee ñu jàng ñaar fukk ak juróom-ñett nga daal dellu si waat ne nañ ko def dunduk sëñ Baara gi ñu dolli waat fukk ak juróom-ñett juróom-ñett muy ñeent fukki kaamil ak juróom te ñeent fukki at ak juróom yi sëñ baara am ci kaw suuf sëriñ bi nee na loolu réy na fi moom lool lépp boo ko boole muy ñetti téeméeri kaamil ak juróom ñaar fukk ak ñett loolu ab lim la sëriñ bi nag nee na mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa ak sëñ baara di ñaan ci barkeb alxuraan yàlla na barkeb alxuraan wàcc ci yow wàcc ci daara ji wàcc ci mboolem njaboot bi nga xëy jaar nañ fi li nga ko waxee nag nee na dégg na ko loolu moom aw sasam la yaa ne aw sasam moom nee na du booy te mi ngi lay xamal ne xoolub sëñ Moustapha sedd na xol sëriñ Abdou Aziz sedd na xol sëriñ Baara sedd na te xol sëriñ Tuubaa sedd na ci waaw nee na nga dalal sa xel te bul am dara loo tiit wala looy ragal ñu ne yoon wi nga jaar foofu rek la nee na ba ko wàcc ci mukk nag waaw nee na loo bëgg nag nee na nga ko di sa maam rek mosuma sëriñ Tuubaa dana la ci fekk jërëjëf sëñ Baara ak xéwal yokk lool barke sëñ Tuubaa ak caaduna bi fépp rek ci kàddu defal naa la ko sëñ bi ñëpp defal naa la ko kàddu na ma mu la géeyal sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha joog sëriñ baara